waaw affaire bi daf may jaaxal ndax lu tax mu di ma jaaxal yaakaar naa ne bu ñu defee analyse pertinente ñi nga xam ne depuis 2012 à nos jours muy fukki at ak ñaar ci ren ñu ngi topp ci parti bi di kàngari leen lu nekk ñu dig leen ko ñu bañ len lu nekk ñu wan leen ko ci xeetu teraanga ñu bañ amuñu woon benn bis lu le 25 février 2020 2024 ñu yaakaar. ñu tas suñu yaakaar ci loo xam ne tegul ci dëgg tegul ci yoon ne Karim Wade du bokk ñun ñu taxaw jaayanteeg yàlla ngir seen jëmm xuloon ngir seen jëmm nga xam ne keroog assemblée nationale mënoon nañoo gaañu wala ñu bañ a waale bakkan yàlla mii suturaal jaam nag moo nu suturaal ba nu génn ci alhamdulilahi rabbil alamin ak seeni ñaan ñu ne nag parti bi bu demul élection deux deux mille vingt quatre 25 février 2024 su parti bi bokkul bu PDS bokkul Karim Wade bokkul mais ñun parti bi tas na déjà am na ñoo xam ne bi affaire bi amee rek commencé nañ di campagne pour ay candidats jot nañ audio yi kon nga xam ne ñooñu ak ñi mel ne ñoom xalaatuñ fi woon a toog dañuy dem tey nag day daan day doon dëgg nag ndax dafa metti fukki at ñaar nga toog di xeex benn mbir ba mbir mi ñëw bañ ne jàpp nga ba nga ne téye nga ci sab loxo ñu la mbir mi nga téye ci sa loxo foqar ci nañ ko bokkatoo. nga bëgg fee toogaat yeneen fukki at nag ndax président bu fi falu feeg fukki at doo joxe sa pouvoir da nga ciy taxaw waa nga muy ñaar fukki at ak ñaar yoo xam ne yii yaa ngi ci coono yaa ngi ci fitna yaa ngi ci ñàkk yaa ngi ci coono yaa ngi ci bëgg Ablaye Wade nga nga toog ko nag ba ba ñuy defate élection xama deux mille lan wax dëgg yàlla loolu tamit dafay metti deux mille deux mille trente day metti ñu ne li ñu war a def mooy nañ def enquête commission d' enquête parlementaire ndax fekk na booba am na yu fi génn yu ñu te audio yi mu ngi ciy am lu muy leeral bi ci gën a fës rek Karim Wade ministre de l'intérieur bu Paris ak premier ministre bu Paris ñoo def décret ne Karim Wade dootul sénégalais dootul dootu dootul français sénégalais la ñu ne il faut mu am 6 mois waaw bu defoon moom te bi ñu war def exam euh, élection yi moom ci 4 mois la toll ndax octobre la ko di pose octobre novembre décembre janvier 4 mois te nee obligatoirement 6 mois la war a doon. waaw kon ñun bu ñu pertee bañ a bokk kon ñun fan la ñu jëm fan la ñu jëm il faut que parti bi ñu def ci ay pexe pour ñu reporter élection yi suñu reporter élection yi ba pare Karim Wade balaa boobu mars au plus tard dina retrouver dana nekk dans la légalité kenn dootu wax ne six yi matul te bu boobaa nag gannaaw am na costion am na parrainage yu député am na am na nationalité sénégalaise am ku ko mën tee bokk ci élection yi li ci des nag ñu teg ko ci loxoy yàlla nag ñaan yàlla may nu ci ndam APR gi ñuy wax nun buñ doon jaay suñu bopp duñ yegg si fii ñi bëggoon a jaay seen bopp ñi bëggoon a dem dem nañ bu yàgg te dara empêché ñu woon yéen ñoo ñu ngeen dem waxuma ak ñun kenn ku nekk bu la neexoon dem sa ngor moo la fi ba waaw léegi ñoom am nañ seen problème ndax ni ma jàngi seen waxtaan ak ni ma dégg seen wax te wax nañ ko ñëpp di ko dégg wax nañ ko commission wax nañ ko plénière nee na ñoom Macky Sall moo leen booleeg Amadou Ba Amadou Ba mooy seen candidat te Amadou Ba bu demee élection ku mënti jàkkaar lool bëgg bëre bañ bëre dañ koy dañ day Amadou Ba day gagné waaye nag comme que taqal nañ ko ndax ñun ñoo taqal Amadou Ba mu ngi suñu rapport yi ne lu fi njiit njaagate mooy njaag awale ko Thierno Alassane Sall ñu ne comme que taqal nañ ko ci corruption tudd ay tur Cheikh Ndiaye ak Cheikh Tidiane Koulibaly léegi ñoom seen leader dañ koy fóot ba mu set wecc wecc wecc mu set mbaamu mu ndaxte amuñ droit di ko accuser te teguñu ko ci preuve yu leer ndax bëgguñu ëllëg seen waajooju bis bu gañee ñu naan ko président corrupteur wala président buy tappale wala nangam nangam waa ñun lii moonu booleeg ñoom ñoom 83 la ñun 25 lañu sur 25 mënu la tax ñu dàq sa élection sur cinq manta tax Karim Wade euh, doon candidat ñun suñ objectif principal mooy nañ fexe rek élection yi ñu dàq ko bu ñu ko dàqee Karim Wade bokk bu ñu ko deful parti bi tas suñu coono ñun ñëpp day réer surtout yéen ñëpp muñ ngeen dee ngeen sonn ngeen damm ngeen tàyyi ngeen mais Ablaye Wade jaral na leen doomam jaral na leen waaw candidat na bu demul élection demu ko 2012 demu ko 2000 2024 kon fan lañ jëm nu bëgg fee toogaat yeneen dix ans wala yeneen douze ans di xaar lii mooy sunu tànk nii la demee en franc cinquante centime kenn ci ñun jëru ko am na ñu naan jox nañ ñu trois cent millions c'est pas vrai c'est des mensonges xam nga bu fekkoon ne sax am na ñoo xam ne ña leen ca ña nekk ca lànga la ñuy wax man intéressé wu ma mais ñi bokkal nag parti ci boppam comprendre ruñ ne ñun dañoo bëggoon suñu candidat bokk moo tax ñu fexe bañ xeex bañ reporter élection yi pour ay nationalité mën a mën a legal ak pour mën a bokk élection yi di ñu dëkkal nag yeneen dëkk day metti nag wax dëgg yàlla day metti dañuy woo di nu saaga dañuy woo naan di ngeen dee seeni doom danañ dee di ngeen am ràmm di ngeen cardiaque da ngeen lu ne leen ñuy wax et c'est pas ça c'est pas ça ñun li ñu xeex ak li ñu daj ak li ñu dégg ñun ak li ñu doon xaar ku ko xamoon danga ñu naan jërë ngeen ak jëf jaaraam ak jaraw lakk foog naa objectif ñun bi ñu doon visé atteindre nañ ko mars au plus tard Karim Wade dana dana dana am légalité euh, renonciation à sa nationalité française loolu lañ doon xeex xanaa nag bu yi jotee ba issue ba bu jot date bi ñu tànn bu jotee waaw Karim Wade bu ñëwee andi nationalité am Karim Wade ñëw indi caution am Karim ñëw indi parrainage am waaye dama ne xanaa kenn ko ne doo bokk nag ci élection yi bu boobaa nag ñu xam ne dañoo bëggul mu bokk ñu xam ne loolu lañ ñu ñu ba ko nag parce que man ak ñëpp ak yéen ñëpp bi ñu njëkkee génne list bi ne Karim Wade bokk na ci 21 yi 21 candidats yi ñëpp a wóor na yàlla ñun dañoo xalaatoon ne rek na préparé nag ñëw ñu daal di ànd wër réew mi lii la ñëpp defoon ci seen bopp. billahi wallahi taalaay barke kasu rajab gii fi ma tëdd bi ñu waxee ne recalé nañ ko. vingt la Karim Wade génn na ci damaa wopp sama lal bii damaa wopp fi ma fekk di ma jox garab ak di ma jox ay biteel parce que sëñ Fallou parce que damaa mbett sama yaakaar dafa tas te leer na ma ni sama yaakaar tase ci loolu ñeen ñëpp seen yaakaar tase na ci ñëpp la seen yaram ge yaram ge lii mooy objectif bi ñu doon visé yàlla may na nu gain de cause ma bëgg ñun delloo si suñu xel jaam ak pexeem yàlla ak dogalam. jaam ak pexem yàlla ak dogalam te fa yàllay defare doomu aadama du fa yegg ba di ko yàq ma tekki ni kuy gëm kuy wóolu bul gëm doomu aadama gëmal yàlla parce que affaire bi tournure bii mu am kenn xalaatul ne dina am man de billahi wallahi taala bi ñu ne Karim Wade bokkul gi recalé nañ ko ci 21 yi li ma yëg yàlla bu ma koy yomal xëy am te leer na ma ne li ma yëg yéen ñëpp yëg ngeen ko ndax ñun ñëpp suñu àddina moo doon pare dem campagne a nationalité lañ ne amu ko waaw ki nga xam ne am na double nationalité bañ jàpp ko nag loolu rek waroon naa tax ñu dàq ku bokk ci candidat yi typiquement sénégalaise ngam nationalité française ak bu Sénégal bañ def la ngay candidat val valider sa candidature xanaa loolu rek waroon naa xam ne tooñ passé wul loolu ki France ne bokkatul ak yow mi bokk ñu di moo njaay tukki nga ci wax dëgg yàlla loolu gépp encouragé presse yëpp encouragé parce que yàlla nu suturaal liñ doon wax buñ ko jëfe woon kon ñun ñibbisi bisi de mbaa ñu bari dinañ ci gaañu te tew dañ koo risqué ñun ñëpp dañ doo menacé seen kër nañ ko wër bu ñu demee taal leen seen kër man assemblée nationale kenn jëkkuma fa ndax bañoon ñu baare ma donc dama ñaan ñëpp ngeen delloo si seen xel delloo si leen seen xel li ñu def parti bi lañ ko defal li ñu def maintenir parti bi ci position lañ ko defee li ñu def bañ suñ parti tasaaroo te benn parti mënuñu ci réew moom lañ ko defee li ñu def dañ koo def pour suñu candidat mën a bokk ci élection yii di ñëw dañ def pour suñu candidat balaa élection di ñëw six mois yi ne moom mar a moom la war am légalité euh, renonciation à sa nationalité dana ci yegg au mois de mars li ñu def loolu rek lañ ko defee defewuñ ko leneen maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen balu àq maa ngi jéggalu mais affaire bi dafa metti dañuy menacer lu nekk lañ ñuy wax man sama ajo yi lu ne lekk lañ may wax te loolu lu ñu may wax la wax képp ku bokk ci ñun waaw nit nag foog naa bu liggéeyee ba pare te nga seet xam ne kii li mu liggéey tegu na ci yoon jaaraama rek ci war a topp maa ngi jéggalu ñëpp di balu ñëpp ak di bal ñëpp ak may ñaan ñëpp nañ delloo seen xel ten ñaan yàlla yàlla mi nga xam ne mooy may may nu nu fekke te tal ba nu jàppale Karim wàdd ba yàlla jox ko réew mi ci date biñ ko bëgg